<laughs> ba ma ko waxee ba léegi maa am dëgg de mun lu ma buusaloo de maa ngi nii ba léegi toog sama kër yaa mbalang di naan sama café Pape Sidi Fall sa daf may seet si tey ma ngay ñëw ma nga te yoon ba macha allah yàlla yegg seeg jàmm di dina Pape Sidi Fall moom lay moom laay recevoir tey tey ci guddi gi incha allah fii lay fanaan waaw di sama mbokk Kaolack di sama mbokk Saalum Saalum di sama doomu ndey bu defu naa te ñu def fi ay live gur taxawaalu fu ñu neexee am naa gan Pape Sidi <laughs> nee naa buy dem ma yóbbul ko yóbbu jox ko yóbbu te mu yóbbul ma ko Macky Sall voilà kon nag sama gars yi farlu leen li la di teg yéen la de yéen a nekk foofu amu leen ni passeport amu leen dara yor yor euh, fièvre rouge bi variole bi xonk coy mu ngeen yor buñ leen ci dóoralul ab tampon wala ñu koleel leen ci ab dara tekku leen dara dooleen leen dem doo dëkk ñu toog seen kaw di leen day di leen napp gëmloo leen ni ñoom dañoo am doole dañoo am pouvoir dañoo fort dañuy naaw di jël ay gaa di indi ni nangam non non non ça passe pas comme ça ça passe pas comme lépp ci ay convention la donc ni ngeen foogee ne Macky Sall am na pouvoir boobu noonu leen noonu noonu non non mais kon Juan Branco mii ba buñ koy jàpp ñu ko ñañu jàpp ne ñooñu ñoom ñoo laal Juan Branco ñooñu la ñuy jéem a jàpp mooy ay maire Sangalkam ay ñoom Pape Sow ay ñoom Bentaleb Sow ay ñoom avocat wu mag euh, euh, Ousmane Sonko yeeg yooyu leen jàpp ñooñu bu ñu leen jàppee leeral nañ ko lépp gis ngeen leen kon bu ñuy ñëwee <laughs> ñenn ñi ba léegi gouvernement waxu leen ni jàpp na Juan Branco déggu leen ko. ay nit ñooy ñëw di leen manipuler bu leen nangu manipulation yi ba ñu jàppee Pape Sow ñëpp xam nañ ni jàpp nañu le maire de Sangalkam ba ñu jàppee avocat Ousmane Sonko bi ñëpp xam nañu jàpp nañ avocat Ousmane Sonko bi Babacar Xoma bu ñu jàppee Benteleb Sow ñëpp xam nañ ko kon kay bu ñu jàppee Juan lu day ne Juan Branco kay lan moo tax ñëw affiché wuñ ko fenn waxuñu ko ñu ñëw jàpp seen i golo yi ñu yónni si internet bi ñu leen di manipuler jàpp nañ ko ak ah, fu ñu ko jàppee nuñ ko jàppee. fan lañu ko jàppee dañuy fen dañuy fen doo wëri information doo ko wëri TFM dañuy fen jàppuñu tous te buñ ko jàppoon mënu luñ ko tous duur rek la def dañ koy bàyyi mu dem yoonam mënu luñ ko fo lu dugal ci avion yóbbu mu dellu fu mu jógee ay RFM ki TFM ñoon du bul xaar ñoon ci ay information duñuy ay informateur ay Sénégal nga xam dañuy copier rek di coller duñu tous voilà lu tax nag ma songaat leen lu ñu def la parce que dama gis ni ñoom dañuy yàq rek yàq Ousmane Sonko rek la ñuy def waa waa waa Sénégal man samay samay booyoo fa ne samay gaañ lañ mais chaque jour ñooñu duñ ñooñu duñ ci dara ay journalistes jàll ñooñu sax ñuy booy lañ bu muy dugg univers suñu sound lañ doon 15 suñu sound lañ doon 15 moom ci boobu moom wax na ma grand xoolal. ñun man ñun seen i seen i dañ leen gëm ay góor waru jow jàmbaar jóguti université moom rek laa doon déglu matin midi soir suñuy booy lañ ñooñu booy jàll man kon man xeexuma ak ñooñu booy jàll sama journaliste guerrier la ñaafekat la kooku bind loolu dama ne nañ xoolaat seen bind nañ bàyyi di yàq Ousmane ko affaire fucking fuck yooyu affaire affaire bitches ni bitches maanaam fuck yooyu dañ ko war a bàyyi ñoom te di wax dëgg un journaliste day def ay investigation ngay def ak émission sax di ne waa gis nañ portable bi gars génne man mii maa génne portable bi maa génne photo bi maa ko yor te gisoo ko ko dindi maa la génneel tur bi maa la génneel vrai turu ndaw si maa la ko génneel maa la wax oto bi ñaata fan la fa def maa la wax ñi nekkoon ci biir oto bi maa la wax lu ñu soloon donc fii information boo leen di wax ci ko jëlee bu doon man amul foo leen ko jëlee kan moo leen wax loolu ku leen wax oto bi ñaata fan la fa def ku leen wax ne ñaata nekk ci biir oto bi ku leen wax ku ci nekk loo ko soloon ku leen ko wax ku leen génnal portable bi Mollah Morgun la amul keneen ci Sénégal dix-huit millions maa leen ko def donc booy wax da am fit loo may ragal Mollah Morgun la ngeen di wax ku nekk di wiiri wiiri moom ak waa waxoon naan ay nañ ko jëli commando yu ko waxi daf ña ngay wax waxu non portable gis ngeen portable ki naan ah non am na ku ko génne man naa ko génne da ngeen ma ragal léegi ba ñi ma leen tudd sama tur <laughs> ñu ma de <laughs> dama sax dama sax de dama sax de dama ne dama ne man déglu ma la ab ab tuut ab liir mun na ma jéem a yab yablu mais baayam bu tey bu laajoon baayam ñu ne bukki dafa am doom gaynde tëdd di nalaw doomu bukki bi ñëw di foo ci xuuru gaynde gi bukki daa yeewu rek gis doom ji di foowee xuuru xuuru gaynde gi rek mu xëm xëm gaynde yeewu xool ko dama <laughs> yow sañ a def lii de xale bi di foo ci xuuru sañ a def lii de <laughs> demal xool xam naa sa baay bu xëm na sa baay xam na de ndakate baay <laughs> yaayu bukki yaayu doomu bukki bi xëm na bu yàgg xëm kon man noonu laa mel ak sénégalais yi <laughs> yàmbalang rek ñuy xale xale ndaw yi jéem a xoolee foowee samay xuur <laughs> mais buñ laajoon seen bu ñëwoon di foowee samay xuur laaj seen baay seen baay ne man dee naa bu yàgg bu may gisee nga sëgg ci xuuru gaynde laa xam ni eh, faatu naa ndax kii bu ñëwee du la bàyyi kër gi yëpp lay rajaxe kër gi yëpp lay lay moxoñee <laughs> moo tax ba may wax nag yenn kolo kolo yi nii ay ree la may def parce que may xam ni ña ñi défendre sax ñemewuñ ma buñ toggee ci ab télé wax yëpp mën naa ko wax mais balaa ñoo tudd sama tur dañuy wéeri wéeri dañ naan dof la dof la day bomb day bomb rek la xam guerre la la tudd Moor Jong Un Vladimir dof yi la jël seen tur ko ci Kim Jong Un jikko Kim Jong Un laa jël ak Vladimir Poutine Vladimir Moor Jong Un sadique moo tax bu ñuy bu ñuy toog ci plateau balaa ñëw ko waa ji na ko ñu ñu ñuy werante noonu téléphone boobu noonu am na ku ko génne am na ko génne mais est-ce que moom la non am na ko génne non kon nañ bàyyi noonu kenn kon gis ngeen téléphone boobu noonu eh, li ci nekk am na noonu bomb nañ ko kii oh. boobu maa ngi toog rek di xaar ah wax la sama tur ku wax dee de muut muut lan la ma nit mën a jaay may booy mbedd mun a raag ba naaw damay raag matin moom laa añee di ko reere di ko ndékkee awma xaw ma arrière xaw ma en am mbaa en arrière moo tax bu ñuy wax dañuy xoolaat fukki yoon juróom-ñaar balaa ñëw tudd sama tur man maa génne photo boobu dama ne la barki Seydina Mohamed portable boobu la ci ne bu génnoon dëkk bi tàkk lumbax mais dafa am lu tax nee naa leen sëriñ yaa ngay dox diggante ba moo tax dégg ngeen démb démb ak tey dégg ngeen doomu sëñ Muntaxa bi génn na naan waaye sama papa yëgul woon loolu bu mu ko yëgee nee na Macky Sall def na erreur te moom bàyyam ma ngi cay dox donc am na yeneen sëriñ ya ca dox yeneen mbàkke mbàkke yi ci yi nga xam ne am na ñu ma contacté wax naa lu leer ay mbàkke mbàkke contacté nañ ma ne sëñ bi man ñu ne ma barke alxuraan ñu ngi lay ñaan nga téegum mbir yi en attendant am na lu ñuy dox ñu ngi téelagum mbir yi moo tax ma téye mbir ndànk ba pare nag ma dem ñi ko jox ñi ma jox demaat ba ci ñoom ne leen affaire yi ñu ci deme ñu ne ma non téel moo laa téel téel man leen ah ñu ne ma waaw amagu leen rek ma ne mais wax naa leen ni dama leen war a génneel bomb bi ñu ne nee ci ndigal ñoom ñoo ma wax de nee leen amagoo ci ndigal ma ñëw wax leen li ma leen di wax ne leen nag ña kilifa ya waa Pastef kilifa ya nga xam ni téléphone bi da ñoom dañoo si Sonko lañ ñuy dem pour laaj ko bu leen Sonko ne am nañ ndigal ma génne ma rajaxe lépp audio tout je m'en fous éperdument donc loolu ñoom